Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér commission bi nga xam ne mooy séentu lu jëm ci wàllu weer wi te ñu ko amal fukki weer yeeg ñaar saa yu weer wolof amee ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu maase toog fii e, bi yàlla dogalee weeru Chaban am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci njiitul Serigne Modou Mamoun Boussa imam waaye mu feggoo ak sëriñ Abdou Diop mi nga xam ne moo yore kàddu euh, commission bi waaye ñu ànd ak waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne naka jekk noonu lañ ko daan àndee ak ñoom tey jii la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Chaban di alxemes yemoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril euh, àndandoo waat nañ ñëw ginnaaw bu ñu jullee timis ba noppi wax ne sëriñ bi nee na nañu maase séentu weer wi te ku ci am lu weer nga ñëw yëgle ko loolu nag bi ñu maasee toog fii <clears throat> li nga xam ne moo nañ tënk nañ ko muy kaddu gu bàyyikoo ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha ki koy jottali moo di sëriñ Abdou Diop imam ñu maase déglu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ni ko sëriñ Fallou Galassi la waxee rek ni ñu ko baaxoo def mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru nga sëñ bi ñu yebal ci jumaa ji ne nañ séentu weer bi te ko ci xam lu weer nga ñëw yëgle ko bu defee noonu ba noppi dañuy génn ci soowu jumaa ji di séentu weer bi ak ci taatan xibaar yi ci gox yi bi ñu ko defee ba waxtu yi jot nag te gisuñ déggun benn xibaar boo xam ne wax na euh, fu mu feeñe léegi boobu lañ jokkoo kër sëñ bi ba sëñ bi joxe na kon ndigal wax ne ginnaaw toll nañ fii nag te gisuñ ko nañ na na nañ xam ne suba dañuy mottali fanweeri fan ak baraxlu su suba ci ajjuma ji nga xam ne kon gaaw mooy benn fanu ramadan di weeru koor kon na ko ñëpp xam-xam ne gaaw gaaw bi mooy benn fan ramadaan kon weeru fii ñu tey suba ci fa suba ci ajjuma ji mooy fan weereel mooy mooy mottali weeru baraxlu di fan weereel fan weereel bi ginnaaw suba nag ci gaaw bi mooy benn fan ramadaan di weer <coughs> di di weeru koor bi na ko ñëpp xam suñ dañ bi ne ñoo ngi ñaan legg ñoo ngi ñaan mu yàgg fi lool te Euh, li ñuy ragal ci réew mi yàlla dàq ko bu baax a baax ci daraje Serigne Touba ba ñëpp delluwaat ci seen sago ci daraje Serigne Touba wala salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu